waaw kon nag loolu defe naa ne doy naa jàpp ci liñ doon wax ci addiya defe naa ne kenn ku fi jóge ku nekk loo xamoon ci addiya xanaa yokku na kon addiya day joxe barke day taxa a texe day tax mucc day tax a gudd fan day tax a day tax sa njaboot di barkeel xanaa xam ne bari na ñoo fi gis ñu am lu dul jeex joxe addiya tax seeni maam joxe addiya yi ñu doon joxe addiya ak seen bàyyi alal ji ñu yor yëpp looloo ko def te li ma leen di wax ni kenn ku ne xam nga ci dara réew moo dem ña fa dàq joxe addiya buñ toogee ba seeni sët mag ña seen maam daan joxe addiya ak daan liggéeyali sëriñ bi ñooy mën sëtu ci des kon nag bu ñu laajatee ni ko sëñ Bay waxe bu kenn jàpp ne laaj bi laaju kese la laaj bi dafa jëm ci sëriñ bi te sëriñ bi lu jëm ci moom jëm ñi ci yàlla kon nag ñu góorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci fonk lii ñu Cheikh Ibra jàngal muy joxe sunu bakkan joxe suñ alal joxe suñ njaboot ndax yàlla ku ko jox lépp mu yor la lépp koo ko jox lenn téye lenn mu jox la li tolloog li nga ko jox kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax.